Macky Sall na xam ne moom mi réew mi réew mi moomu ko réew mi moomu ko sénégalais la comme ñun na dimbali ñu ngir yàlla Ousmane Sonko dañu am ci moom yaakaar ñun ndaw ñii ñoo fi jëlee woon Abdou Diouf barki démb ak maître Abdoulaye Wade moom ñoo ko fi jëlee incha allahu taala lum ci bañu bañu ñu ko ci na ko leer non trouble à l'ordre public amu fi parce que trouble à l'ordre public ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko def ñoom ñooy les premiers fautifs lu fi jëlee laay wàdd du ko fi ba loolu na ko na ko comprendre mënuñu ko continuer ça suffit alors pacifiquement lañ ñëw pacifiquement yow gis nga kenn kenn fii ñëpp pacifiquement lañ ñëw toog defuñu dara kenn def fi dara pacifiquement la ñëpp ñëwee Ousmane Sonko bu ñu ko bàyyi mu jaar yoon bi muy

nous sommes des responsables nous sommes des chefs d'entreprise nous sommes des responsables dans ce pays-là et sincèrement sincèrement nous voyons que notre État est en train d'abuser Nous abuser patience nous ne veut pas hériter d'un état un état justice bu légalité c'est pour cela sommes pacifique mais n'est pas une peur sur quoi que ce soit du ragal du tout ce qu'ils veulent. c'est pour cela que tout le monde sait tout le monde sait amul kenn ko xamné dinañ ko amul kenn ko xamné dinañ la convoquer di la tracer l'itinéraire la première erreur foofu la taxaw tracer l'itinéraire ñom xam nañ fi mu wara a jaar mënoon nañ ko ko notifier avant ce jour buñ ko ko notifier won dina leer mais buñ ko ko notifier tout ce qui se passera sera à leur responsabilité. Tout ce qui se passera. Mais on lance un appel. On lance un appel à tout le monde. Que gis nga benn benn sénégalais benn nous sénégalais benn nous sénégalais là, vous bu mettez ci qu'ils savent que les loo xam ne ci mu ñoom ñooy responsable benn bakkan laa wax benn bakkan rek bu yeboo ñu ñu xam loolu benn bakkan bu ci yeboo Macky Sall dictateur il est temps de nous respecter nous disons non nous disons non nous dictateur il est temps de nous respecter nous disons Nous disons non, nous disons non, Macky Sall Il est temps de nous respecter. Nous disons non. Nous ngi noonu nee nañ kolobaan lañ jëm ñu ngi nañ kolobaan tey dara du yomb ñu ngi noonu kolobaan lañ jëm ñoom ñëpp kolobaan jëm ñu ngi noonu départ nañ départ nañ départ nañ a ah, mbir maa ngi noonu yàlla da si yàlla def jàmm départ nañ ñoom ñëpp départ nañ ñi ngi noonu ñi ngi noonu yàlla da yàlla def jàmm. Sandaga gaa yaa ngi noonu départ nañ ñëpp. dégg nga ko loolu la wax loolu lañuy ñuy wax ñoom ñëpp loolu lañuy wax. départ dictateur parce que invité ou bien accusé arbitrairement le président Ousmane Sonko nous disons que c'est de la forfaiture un État qui a échoué, un État qui a échoué, un État qui a carrément échoué. Et nous disons non à cette dictature. léegi ñoo ko gisandoo ñoom ñëpp a ngi noonu di dem léegi fan ngeen jëm. Sonko la man Sonko la boo ko laalee Sonko. yaa ko dégg ñoom ñëpp loolu la ñuy wax ñu ngi di dem yàlla ci yàlla def jàmm dëkk bi ñëpp génn nañ. gis réaction ñu waa Sonko lañu waaw ñu ñëpp Sonko lañu àndal barka Sonko Sonko lañ gëm waaw dëkk bi moom loolu lañ wax loolu lañ wax yaa gis ñoom ñëpp loolu lañ wax Sonko lañ wax waaw lan nga bëgg a wax président nit ñi lay bëgg président nit ñi lay bëgg président kenn bëggu la ñun toog ko daara yi am ñu am ñu accès ci nit ñi dañu saa ñu am accès nit ñi ñun élèves yi yëpp président nit ñi lay bëgg xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii président nit ñi président kenn bëgg ko am ñaar la woo la la am cinquante pour cent doy na doy na waar doy na waar doy na waar yal na si yàlla def jàmm rek yal na yàlla def jàmm lii du dëgg du yoon laa lii du dëgg du yoon Macky Sall moomu ñu tekkiwul moom lañ ànd ñu waxee yow ni ñuy fii poste Médine ñuy fii poste Médine ñuy xool ba xam yan réaction mooy am fii ñuy poste Médine di xool situation bi ni mu demee ah ñoo ko gisandoo ah fee commencé na yëngu de commencé na yëngu de waaw dafa mel ni côté stade bi lay nuru stade Iba waaw police ñi ngi tas ful bi foofu yàlla na yàlla def jàmm li ma jaaxal de gaañaa ngi yor ay yet nii taxaw man lii lu mu doon lii lu mu doon gaay ay yet leen yor di daw de lii lu mu doon lilumu doon yal na yàlla def jàmm. fii ñu taxaw nii nag gis ngeen situation bi ñu ngi ci sat Iba Mar fii nag gars yi xaw nañ ko jaxase tuuti yaa gis oto baa ngi noonu ndox mu tàngi jër yal na yàlla def jàmm rek ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi lii nag ñoo ko gisandoo. gaa ñaa ngi nii de xaw ma nag ay oto daal ñoo nekk fii ñoo xam ne ñu ngi leen di jël si ñu ngi xool situation bi fan lay mujjee rek yal na yàlla def jàmm ci réew mi di xool ñu xool ba xam lii fan lay mujjee en tout cas ñu ngi def benn cortège ñu ngi def benn cortège xamuñu nag affaire yi fan lay mujje yal na yàlla def jàmm ci réew mi.